waa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki taalibe yi euh, niñ leen ko diggee woon rek noonu lañ koy fas yéene ànd ak yenn mu mel ne ñu ngi ànd ak waa daara Miftaaxul Muna bu Touba Tëngéej ñoom tamit ni ñu baaxoo di ko defee ci màggal bi bëccëgu màggal bu jot nga xamante ne dañuy tool togg toll ci ñaar fukki mban ak benn wala ñaar indi ko fii ci jumaa ji bernde ko ñi nga xamante ne ñooy jaamu yàlla yi kon ñu ànd ak ñoom incha allahu rabbi ba ñu dugg ci jumaa ji bu ko defee ñu gën a feeñal li nga xamante ne nii moom mooy liggéey bi kon damay ànd ak sama caméraman rek ñu mën a fexe incha allah yaatal loolu éléments yi nag ñu ngi ci ànd ak Seyna Omar moom it di jàmbaari sëñ tubaa eh, di jàngkatu xasida waaye nag eh, di takk laxasaayam nekk ci waar wi kon na Omar nan nga gisee liggéey bi nga xamante ne moom la daara Miftaaxul Munaadi waaw liggéey bi moom xanaa liñ ciy wax rek mooy waaw ay ndaw lañ xamante ne dara ñoruñu daal lu dul liggéeyal sëñ Touba mën moom kese moo ñu ñor wallaahi di toppal li nga xamante ne nii euh, moom mooy daara Miftaaxul naa ci li nga xamante ne noonu la ñuy àndee yéen ci defar ay xéewal yu yaatu boo gisee mbooloo mi ak euh, bagage yi nga xamante ne moom la andi euh, mu mel ne rek mooy li sëriñ bi digle ci màggal gi bernde jàng alxuraan waaye nag jàng daara ji di ay jàmbaar lool bés bu nekk nag bëccëgu màggal nii lañ koy defee boole kaaki xéewal indi ko fii ci jumaa yi jox ko jaamu yàlla yi kon bu ko defee ñu ànd ak ñoom rek euh, bu ko defee ñu gën leen a feeñalal li nga xamante ne nii moom mooy liggéey bi. jëwrin Mouhamed moom it di kilifa ci daara ji nga xamante ne moom mooy daara Miftaaxul Muna kon nan nga gisee sëñ Mouhamed liggéey bi nga xamante ne nii daara ji mu ngi koy def waaye nag at mu jot mu koy def di ko indi fii ci liggéey kër sëñ Touba. jaam ñu ngi lay sant bu baax di sant sa équipe bi yëpp wax dëgg yàlla moom di rafetlu teewaay fii bu ñu ngi ñu ngi santaat yàlla bi ñu yàlla mayaate ñuy ñëw di fekkawaat liggéey di liggéey suñu bopp di ka jaar la si si seexu naa xamul xarit ñu ngi siy sant yàlla bu baax di si sant suñu jëwriñ bàyyiloo mi xam ne am ñu la dañ roy jëwriñ la depuis bi ñu nekkee xale ba léegi fi lay ñëw mu tàggat ñu si liggéey sëñ Saliou dañ siy sant yàlla di ko gërëm di ko ñaanal mbooloo mi yëpp waaw waaw waaw sëñ Mouhamed nan nga gisee li nga xamante ne nii mooy bésu fukki fan ak juróom-ñett bi nga xamante ne moom la sëriñ bi wootee ak mboolee mi ni ñu dawee ñëw lan ngay dolliwaat ci loolu. waaw bésu nag moom dañ si santaat yàlla bu baax di wax ne ki nga xam ne moo suñuy référence muy Seexuna Ahmadou Khadim moom am ñu fayam parce que wax dëgg yàlla lim ñu defal dañu defal loo xam ne mënuñu ko fay dañuy dellu di santaat yàlla rek bu ñu boolee si njabootu Seexuna Ahmadou Khadim wax dëgg yàlla moom bésu moom à chaque fois rek li ñuy wax lañuy ñëw bés bi di gën a gën a alaa doome mhm. xéwal di gën a yokku mhm. nga fiy gis loo xam ne à chaque fois mosoo ko gis mhm. dañ si sant yàlla bu baax di leen si gërëm bu baax yéen tamit di gërëm mbokk taalibe yëpp waa jërëjëf Mouhamed kon euh, ñu taxawlu foofu tuuti rek bu ko defee xéwal yi mën a dugg incha allah ñu mën a yaatal li nga xamante ne ni moom mooy liggéey bi xam naa laata mooy dugg sax dañuy jël jëwrin euh, sëriñ Imam Malick mooy jëwrinu daara Miftaaxul Muna euh, bu ko defee ginnaaw biñ la nuyoo bi Euh, naka nga gisee liggéey bi nga xamante ne moom la daara ji def at mu jot mu koy def fii ci barabu sëñ Saliou waaw daam alhamdulilah dañu sant la rek xam ne liggéey moom nii rek lañ koy fasante liggéey moom xam sa bés bi ñëwatee waaye mu xam sëñ bi mu dem tukki ba ñib si moom dañu ne ku ma yaakaar rek mu texe kon loolu rek doy na muy sëkk sëñ daam buñ mu ñu lepp luñ ci man ak luñ ci mënul rek dañ ko ci def yaa rek tax ndax lepp ci way waay def rek di nga gis njëriñ bi alhamdullilah jërëjëf jërëjëf kon kii ñu lon moy jëwrinu daara Miftaaxul Muna batay non lañ leen di topale jotaay bi mbokk yi bu ko defee ñu taxawlu foofu rek incha allahu rabbi fexe dugg ak mbokk yi nga xamantene ni ñoy euh, ñooy xel seen télévision Galaxy TV waaw kon mbokk yi ba léegi ñu ngi leen di toppal li nga xamantene ni nii moom mooy màggal gi euh, ñu ngi nag taxaw ak suñu xarit sëriñ Abiboulaye euh, di membre si daara Miftaahul Muna euh, kàddoom nag da koy def ci version anglais bu ko defee mboolem ñi nga xamante ni ñooy topp seen télévision Galaxy TV mën a dund màggal gi mën koo xam mën koo comprendre waaye nag ci version bi nga xamante ni moom mooy anglais kon bismillah euh, sëriñ Abiboulaye. hello everyone here are every Saint Dam Job. Uh, I'm so glad to be here today for, for the greatest day of the uh, mu mel ne nag xam naa ne uh, di ci di ci di ci di ci di ci jawaar du du du xam naa du gën a yaatu waaye li la doon laaj rek ci wàllu uh, anglais bi nga xamante ne ni moom nga ko bëgg yaatale yaatalee nan nga gisee bés bi nga xamante ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. yeah you know that a 18 day of safar is a great day of Mouridism that marks the leaf dat maakt de lief of uh, our, our, our, our Halif, Sheikh Ahmad Bamba, uh, leave the country for this greatest uh, work to have to do for our community. You know that it's so important for us. It's the greatest day that we have, that we ain't have for everyone of you. reason why that's we are so happy. We are so happy to have this for this community of us. jërëjëf Serigne Habib bu ko defee inshallah, ñu ànd ak yéen rek ci li nga ni Euh, yor-yoru màggal gi wala bëccëgu màggal gi ak seen télévision Galaxy TV bisimilah. kon mbokk yi mu ngi noonu <coughs> ni leen ko waxee woon rek fas yéene di leen toppal li nga xamante ne nii mooy màggal gi ngir ñi nga xamante ne amoon nañ yéene teew te suñ borom dogalu ko bu ko defee ñoom it ñu dund màggal gi nga xamante ne moom lañu nekk nii. Euh, daara Miftaaxul Munaa nag diñ leen ko waxee at mu jot muy def lu mel nii indi ko fii ci barabu Serigne Saliou. waaye nag di ko jox jaamu yàlla yi nga xamante ne dañoo ñëw ci màggal gi ku wax nag euh, togg wax waañ mu mel ne ñu ngi taxaw ak Serigne Issa di jëwriñ waañ bi ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté wu bu ko defee nag euh, ñu am ay laajte rek ñu koy laaj ci lu gàtt. asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen siyaar ñu jox kenn ku nekk jërëjëf Serigne Issa euh, ku wax màggal wax bernde wax waañ waañ tàng metti waaye nag nan ngeen def ba dajale lii nga xamante ne ni mooy xéwal bu ngeen ko dajalee ba noppi yamale leen ko seen dal waaye ngeen fas yéene koo jox jaamu yàlla yi. waaw kon ni nga gisee mooy magal gi moom li ci mën di xew ma naka mooy góorgóorlu la mm-hmm. te ku wax murit wax góorgóorlu ak liggéey mm-hmm. ndax yombul mais nag ñun amuñu lu dul Sëriñ Tuubaa mm-hmm. teg ci bernde lañu doon santaan te bernde moom ku ko wax ku ne xéewal lay laaj suñu àggee dëkk ba dañuy dajale nekk si liggéey bi di góorgóorlu ay ndaw lañu am ak ay mag ñuy góorgóorlu mag ñi jàpp ci ndaw yu góorgóorlu ñu dajale li ñu am as néew ndugg indi Tuubaa suñu egsee togg ba mu ñor yàq indi jox jaam ñu lekk lii lañ ci jublu ndax magal gi bernde la kon nag wax dëgg yàlla ñun daal lii lañ xam si magal amuñu benn yitte bi dul bii liggéeyal rek te te ku wax liggéeyal seigne touba manaka wax ciona comme seigne bi coona ciona coona kon ñun coono mënul ñak si ñun ñuy gor gor luñu man ak luñu mënul def ko ngir bis bi jak dereje sëriñ Issa ci ci tontu gu am solo gogul euh, benen bi si topp ma gis ne ay ndaw rek ngeen andal euh, ndax ndaw yoyu Pastef gi ci war ak ak addiye ji ndax mu ngi maté wala naka ngeen mëna andé ba dajalé lu melni nii nak indi ko fi ci dëkk bu sell waaw ku wax ay ndaw xam ne xale yu ndaw yi dañuy jàng métier ñii dañuy góorlu comme at la mbirum at la teg ci yëg-yëg lañ koy defee ak bëgg-bëgg ak gëm yàlla kon dañuy góorgóorlu kenn ku nekk ndaw yeeg mag ñi kenn ku nekk góorgóorlu sa dërëm sa ñaar dërëm am ay jàmbaar yu mag yu ci nekk si liggéey bi di ko soññee di ci dajale ba mu sotti ñenn mag ñi góorgóorlu dajale ñu seeti comme jëmm yi yéegi ni jëmm yëpp ñu dajale kenn ku nekk góorgóorlu weccit bi bariwul as néew si xale yi ndax ay ndaw lañ yuy jàng métier mais am nañ passeefu liggéey ngir sëñ bi nekkee ay ndaw ay mag ñu doon dajale def lii kon suñu nekkee ay mag ñu ñoo war a liggéey bi soo ñu booy ñu góorgóorlu as néew lu ñu am rek ñu boole ko indi métti na loolu nag mais nag sëñ bi jar na ko teg ci ku wax ku wax ndakaaru xam na jamono ji met na ak jamono ji mu toll nii lépp a seer mais nag sëñ Tuubaa amul morom te lépp sëñ bee ko yor sëñ saa euh, kon lan ngay soññee rek wala ngay fàttali ñi nga xamante ne ñooy daara Miftaaxul Muna ndax léeg-léeg laaj dafa métti na ngay laaj nit ki sax mu jàpp li nga koy laaj ci boppam la jëm kon lan nga leen di ñaaxaat ak bu demee ba toll fii nga xamante ne tar na lool lan mooy wara a doon ñoom seen taxawaay. waa taxawaay bi mooy kenn ku nekk li ngay def rek nga yëg ko yëg-yëg ko moo am solo si parce que gis leen ma amul njariñ ndax li ñuy def nii sëriñ bi rek moo ko waral kon kenn ku nekk day gëm ni loo def rek day ñëw day teew kon li ñuy soññee mbooloom yëpp mooy kenn ku nekk xale yeeg mag ñëpp góorgóorlu wat laxasaayu xam ne murid du wàcc ku du wàcc nag dangay ngay góorgóorlu li nga am as néew nga indi ko rek pour ñu góorgóorlu jëm sa kaw ca kanam. jërëjëf Baye Issa ñu ñu taxawoon nag ki nga xamante ne mooy jëwriñu waañ bi kon xam naa ci kanam rek ñu doxantoog yéen ba tey di leen toppal li nga xamante ne ni mooy màggal gi jërëjëf Baye Issa jërëjëf kon mbokk yi ba tey ñu ngi leen di toppal li nga xamante ne ni moom mooy euh, bisu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar euh, bu ñuy wax daara mi taaxul Miftaaxul Munaa nag dafa am ay jëmm yu ñu miinoo di leen gis wala ñu baaxoo di leen gis waaye ki nga xamante ne mooy suñu baay di suñu kilifa di suñu sëriñ di suñu jawrin moom mooy ki nga xamante ne mooy baayu daara ji di léppi daara ji kon moom it dañ koy jox rek euh, moo am ay kàddu yu mu fàttali mbooloo mi wala yu mu soññ mbooloo mi ngir ñu gën a jox li nga xamante ne nii moom mooy màggal gi wàccuwaayam ndax kat euh, sëriñ bi wax na ne wala sëriñ Saliou wax na ne ñaar bu ñu dendee kii fonk màggal gi kii ñàkk ko fonk ki ko fonk du deñ di raw ki nga xamante ni moom moo ko ñàkk fonk te it dëgg-dëgg màggal suñu borom mu ko jaarle ci moom ngir ñun ñu xam nan la ñuy màggalee kon loolu nag jaadu na saa su ne mu lay soññ di la teg ci aw yoon kon dañ koy jox rek euh, bu ko defee moom it mu soññ mbooloo mi nga xamante ni mooy daara Miftaaxul Muna bisimilah suñu baay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñëpp di ba baal àq ñëpp di baloo àq ñëpp. di wax alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Cheikhuna Ahmad al Khadim sëñ daam noo ngi lay sant di la gërëm ndax yow it fi mu ne yoway mag moo xam ne ci biir daara ji sab taxawaay rafet na ba ñëpp xam nañ ko gis nañ ko wala man xam naa ko gis ko ndax maa ngi dégg say soññe waxtu wu ne ci li ngeen di def amaa màggal gi baat boobu ci sëriñ Saliou wax day daal di yóbbaale lépp mm-hmm. fu fi ñaar dend loolu war naa mën a soññi am murit mm-hmm. ànd gi ngeen ànd ak man maa ngi leen ci sant bu baax di ci gërëm li ngeen man ak li ngeen mënul yéen a ngi koy def mm-hmm. man nag mu ne foofu ñaar deel la moo ma ci dem bi li lu yegg si fii ma ne tey moo ma dimbali ba lu ma ci bëgg a def ma def ko moo ma dimbali ba seen yéen ñi nga doon ay tuut tànk di ñëw nu di ko ànd am na ñooñ sax booba du ñuy tuut tànk ndax war agu ñëw juddi mbaa buñ juddoo ñu tuuti lañ ñu dem ba ñëpp doyloo ma ngir jëmmi Serigne Saliou jébbal ma seen bopp te man ma di dong ne ñoom may ñaan Serigne Saliou moom i tax daara ji ñu ci bari jébbal ma seen bopp ma fas yéene ànd ak ñoom jébbal sëriñ Saaliwu Mbàkke sama bopp jébbal leen ko yeesal sama njébbal ci moom liggéey bi bu yegsee fii sëriñ Saaliwu la ndax moo ne moon sàllaaw noonu rek la ko borom bëgg de yàlla na la ci borom fekk ma ne ko amiin ma ne ko amiin ma ne ko amiin amiin Mbàkke mun Baye Cheikh Ndiaye ne ko ah, ñaanal ko jàmbaar la loolu de mu ne ma yàlla na ci borom fekk fekkee sam googee moo indi lii ngeen ñëw ñeneen ñëw xéewal yi ñëw di dolli ko bu leen sonn ci di bëgg ngeen borom mi bari lool ba ngeen ñoo ñoo ñoo oh, mu bari lool mhm. waaye ku sunu borom dimbaliwul mënoo cee bokk mhm. Mhm. ku sa ndey liggéeyut it mënoo bokk ci liggéeyu sëñ Tuubaa bii nuy def ku ci ànd na ci na xool boppam noo ngi ñaan ci barke màggal gi ak borom màggal gi képp ku sunu borom boole ci liggéey bii donte bu kuu ci sax waaye yaa ngi koy defee nii nun su noo ngi yalwaan sëriñ bi mu defal nu tawfeex ak ngëneel ak yokkute bu yaatoo yaatoo yaatoo koo xamante ne lépp dana ci xaj te ngeen yàgg a ñëw te yàgg nu fee fekk waaw ngeen yàgg a ñëw te yàgg nu fee fekk ci barkeb Serigne Saliou ngeen yàgg a ñëw te yàgg nu fee fekk barkeb Serigne Saliou yàlla na ngeen fi yàgg ñëw yàgg na fee fekk lépp luñ ci jëf yàlla na ko Serigne Saliou nangu moom mii di borom baraag bi ndax mm-hmm. mooy borom baraag bi mooy ay magam mm-hmm. mooy ay rakkam mm-hmm. boo nee Serigne sa waa kër Serigne bi man ni may def mooy koo ma ci tudd rek Serigne Touba ngooga ci man man ko ma tuddu di tambali seigne Modou mustapha mhm. ba ci Cheikh Momadou murtala mhm. ba ci seigne Mountakha mi mhm. boo ma ci tuddé kenn rek jappal jàppal ne xalaa kooka laa jàppe mooy Cheikhouna al Khadim waaw nit nag faaw mom pété ndax man ñima dimbali bari na lool ba nim yexé ci seigne salih mu yeggale ko fi mu yexé no ngi len di sante di len gërëm di len ñaanal tawfeex ak mucc ak wér yag ko and ci barkeb sëriñ Saliou wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf jërëjëf euh, Baylo ñu ngi sant bu baax a baax a baax kon xam naa ñu wéyeg leen rek ak yéen incha ci soxna si noo def. maa ngi fi. ngi si jàmm bu baax. maa ngi si sant yàlla bu wér. moo Awa Seck. Awa euh, yéen yéenay ñan waa daara bi yéenay ban daara. ñooy waa bi taaxul mu naaw. Euh, ñu gis ne yéen ngi fii biir Touba ci jumaa di joxe ay ñam. ndax lii chaque année da ngeen koy def wala sax euh, ndax da ngeen di def comme boo leen defee année bii ngeen tëbal am déet. chaque année dañ koy def waaw chaque moom dañ koy def. ngeen ko daree def ak léegi mu ngi toll si ñaata at. yàgg na yàgg na ay yu bari ñu koy def yàgg na trop saa yu ñu ko defee rek saa yu nu at mi ñëwee ñu gis si ay taw tawféex yu bari sax yoonu sëñ baa moom amul ay tànku ginnaaw tànku kanam rek. saa yi nu ko defee gis ci jaam ak salaam suñu waa daara bi yokkute rek lañ ci gis ndax sa année ñi ngi koy def defar di def ba mu baax ndax yoonu sëñ Tuubaa moom loo ci def pettoo ko. donc yéen daal da ñëw fekk fi euh, mbir mi ngeen ànd ci ak ñoom. Hmm? da ngeen ñëw fekk fi mbir mi ngeen ànd ci ak ñoom. waaw dañoo ñëw waa fekk fekk ñu ñu ànd ñoom waaye biñ ci àndee ñoom ba tey amuñu dara luñ ci metti lu baax rek lañ ci gis. bu baax kese lañ si gis xanaa sant yàlla rek at mu bari yàlla nañ koy fekkay at yu bari at bu ñëw yàlla na dàq bu bu weesu. soxna si noo tudd. man soxna Yacine Diop. soxna Yacine euh, noo gisee màggal gi ak euh, initiative bi ngeen jël seen daayira bi. waaw sant rek sant rek sant bu weer sax ndaxte bañ koy def ba léegi nii gisuñu si benn rëccute ñu koy santé serigne touba bu baax té di ñaan yalla sax at ñu mën lu ñu gënon mën ren ji ni inshallah yow lan moy sa responsabilité bi ci biir daayra wa fi dé mom ginaaw ginaaw goor yalla man ma jité soxnaay fi ni té tamit biñ ma jitalé ba légui mom ma sha Allah gis na ci yokute dal wa ñu koy santé bu wër sax ndax do am ay jafé jafé ngir dajalé ñi nga xamanteni ñoy soxnaay bu magal gi jotté dé wax deug yalla ñu amuñu bénn jafé jafé parce que respecté nañ respecté nañ lepp luñu charte daara ji da respecté nañ ko motax gisuma ci ben tolof tolof daal ñu koy santé bu wër. merci beaucoup jaajëf. soxna si noo tudd. soxna Khady Lo. soxna Khady Ndoye. soxna Khady mu melni rek yow yaay dalal wa daayira bi fi ci bir Touba ana lan nga koy organiser ba do ci am benn jafe-jafe. Euh, salaamaaleykum alhamdulilah. Euh, daare bi dama judd fekk si ñoom ak seen i ñu koy def ñu fekk si ma fii si Touba ñu nekk ñoom dañoo neex a dalal bëgg sëñ bi fekk ñu koy def comme ça ñu bëgg ko ak ñoom euh, ñoom it ñu nekk ni ñoo xam ne ñu neex a dalal lan duñ la sonal si dara ñu tamit ñu bokk bëgg-bëgg moo tax liggéey bi gën a yomb lii gën a yomb di gën a xéwal di leen ñaanal tamit seen lii ñuy def nii yànn na yokk ba ci kanam ak ba suñuy sët di ko fekkee parce que nekk na loo xam ne macha allah daal laa wax alhamdulilah sama mbokk <laughs> dama mënut wax nag mais kontaan naa si ñoom torop torop si fekk si bi ñuy fekk sonalu ñu si dara. wax sëñ bi wax rek mais gan bu ñëwee danga koy ganale dalal ko génn néeg gi jox ko ñi nga xamante ni mu ñëw di gani ndax loolu yéen a ngi koy respecté bu baax. waa loolu moom. ku ñu koy wax sax dañuy xaw a jaaxal parce que nekk na loo xam ne dañ koy xam dañ koo xam ba pare ensuite ñoom ñu nekk ñoo xam miinante nan mën nañoo bokk lépp mais dañu obligé sax ñoom di bokk ñun biti bi te xaj nañ si biti bi yëpp mais boo ñëwee doo xàmmee gan yeeg kër gi moo tax doo mën a xàmmee sax ku fanaanu ku fanaanu ci biir moo tax kontaan na ñoom daal amuloo wax ak ñoom mais loolu ñu ngi si Euh, ñu gis yéen a ngi sol ay yére yu rafet macha allah ay laxasaay yu rafet ñu bëggoon xam rek laxasaay yi nan ngeen di organiser woo ba ñëpp nduróole lu ñuy sol ba kenn du xàmmee kii li mu sol moo gën a riche ak keneen ki li mu sol moo gën a riche naka ngeen organiser woo ndax yéen yéenay jël seen propre xaalis jënd ko wala da ngeen di jël si li nga xamante nii moo di xaalisu daayira. waa laxasaay yi nag dañuy aidé parce que ñëpp yemuñu dañuy aidewante suñ biir ba nu mu yemoo rek ñu defee ko noonu comme saa ni ni mu nuróowee xool yi comme nuróowee noonu amul kii amul kaa mais bu yëmbu tamit dañu xam ne noonu lu ko sëñ bi dogalee mais chaque année day yem parce que doo la yëmbu te dañu jàppalante suñ biir comme ni ñu ko digalee. macha allah soxna si kontaan alhamdulilah